bi jaayi xayri man abaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di leen baal wax waaye di leen maal di ñaan sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi loolu te weer di leen wax rek ci ay kàddu yu gàtt yoo xamante ni bii euh, fas nañu ko yéene jooyal ci mbooloo mi mooy ñi nga xam ne ñoo gàlloo liggéeyub Touba ci kanam waaye bànqaas gi nga xam ne moo fara yoon daaru te soxna Seynabou Sène jiite ko euh, ñu di leen sant bu baax a baax ci liggéey yoo xamante ne bi waa ci kanam bi ñu ko jëlee teg ko seen loxo ak léegi wax dëgg yàlla gis nañ ci lu kawe seen njort ci wet gi nga xam ne moo fare yoon daaru ñuy wax rek ne ñi nga xam ne ñoo dëkkee yoon daaru ñu gën a góorgóorluwaat nammaat seen laxasaay bu baax ci Touba Ca Kanam ndaxte ñoom dafa mel ne Touba Ca Kanam euh, ñoo ko tax a jóg donte la dëkk bépp ko tax a jóg waaye ku ne gis na réalisation yi nga xam ne Touba Ca Kanam def na ko fii ci yoon daaru ak li ko wër mu mel ne monté nañ fi benn euh, pompe forage nañ fi def ay lampadaire ñu ñëwaat fi defal ñu fi tey ji aw yoon woo xam ne ñëpp a bopp waaye dafa ñëwaat ci leneen lu yees loo xamante ne bii mooy poste wala case de santé bi nga xam ne Seydina Aliou Gassama tabax na ko fii ci yoon daaru euh, ñu ñëw fi équipé ko ak matériel boo xamante ne bii ah bu mucc ayib la bu méngoo ak jamono muy matériel yoo xam ne yu doy waar la ku ko doon xayma tey yi dana dem ci ay millions yu bari ah, wax dëgg yàlla Touba ca kanam daal ne ginnaaw Serigne Aliou Gassama ngi participer ci Touba nga xam ne loolu warteefu Touba ca kanam la woon waaye ñu ne ginnaaw Serigne Aliou jiitu na leen ba tabaxal leen case de santé bu mel nii kon ñoom liñ ko mën a darajaale wala liñ ko mën a faye wala liñ ko mën a jàppale mooy utal ko matériel boo xamante ne bii méngoo naak barab bi nga xam ne tabax na ko ñu koy ñaanal bu baax moom Serigne Aliou Gassama ah, borom defal ko jàmm ak xewal aw fanam gudd lool ndaxte jàmbaar la Ah, bu ñëpp defoon ne moom tubaa ma nga ca kanam ginnaaw nag mi ngi ci tubaa ca kanam ñoomit ñoom it fas yéene képp koo xamante ni yaa ngi ci seen i tànk lépp lu ñu def ah, lu ñu war def nga defal leen ko lañ ca man ci seen kéemtalaay kàttan danañ ko def waaye ci kaw loolu tamit ki nga xam ne mooy njiital tubaa ca kanam fii ci yoon daaru muy soxna bu Sène muy jigéen waaye di jàmbaar ndax tey it wax dëgg yàlla bitig la ku ne xam na ne borom bitig amul amul jot mais day tëj boutique am à tout moment moog ñi mu àndal soxna yi vraiment ay soxna yoo xam ne yu am dynamique lañ yu jàmbaare lañ dañuy bàyyi seen liggéey yëpp ñëw ci liggéey Touba ci kanam mu jaral leen lu ne ñu leen di sant bu baax di sant seen borom ak seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen di bàyyi ah, ñu ba pare di nangoo ànd ak ay góor di liggéeyal Serigne ñu bàyyi leen ci ba noppi am ak ñoom confiance ñu ngi leen ciy sant bu a baax di sant euh, ne moo jiite wàllu santé bi ak euh, Serigne Mourtada Mbacke Serigne Abdou Fata moo jiite wàllu social ñu ngi leen di sant bu baax a baax wax dëgg yàlla daal di gën a soññ ñëpp ñu gën a farluwaat bu baax a baax ci liggéey bi xam ne lépp lu mënti doon rek ñaar man mën na ko. man mi di wax ne di Abdoul Fatah jóob bokk ci kenn ci ñi sëriñ bi jàngal yar ko ñoo am ndigal lu wax ci turu sëriñaal Aliou Gassama di ñaanal waa Touba Kanam yëpp seen jëf jure ji ñu jëf yaa na ko yàlla nangu fu ko làq leen ko yàq ak agul sëriñ bi di leen wax ne am na mbégte bu baax ci ñëw gi nga ñëw ci barab bii ndax pajukaay bi nee na ba mu koy defar da koo def ngir. liggéeyal ko suñu borom subhanahu wa taala jiital ci nag ñooñ alquranul karim ak mboolem kuy ab jullit rek nga mën fee ñëw di ci gis sa bopp nee na bagage yi ngeen ko fi indi lu rëy ci moom la mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di wax ne nag moom daa jugure ngir liggéeyal suñu borom kon képp ko xam ne jug nga ngir liggéeyal sa borom subhanahu wa taala tàllal noo xam ngir nga ànd ak moom nee na gis na jëf ji bi ci toppit mooy moom daa bokk ci ñi nga xamante ni Touba ca kanam bis bi mu jotee seenu xawaar la dagoon am at at mu mat sëkk moo xam ne loolu ab soñña la ci képp koo xam ne yaa ngi yeewoo biir Touba ba muy dagg carte wi booba xamutoon na sax bis dana ñëw seen jëf dugg ci ab liggéeyam kon moom liggéeyal suñu tubaa rekk ko ñor Touba ci kanam nag dañuy wax ne mbooloo mu ne jug na fi waaye gu mel ni mosu fee jug judd bi yàggul waaye màggin bi moo rafet bi ci toppit mooy di soñu képp koo xam ne yàlla dogal na nga ànd ak sëriñ bi ab liggéey ndax sëriñ Touba radiyallahu anhu daa am ay ñaan yum ci dëkk bi ca faaw mu am ña koy amal na mooy ñun ñii ca bokk na ci ñi koy sottal ci ñëpp teg seen bët muy Touba ci kanam ñu ngi leen di sant di leen tàllal loxo di ñaan yàlla mu nangul leen. di ñaan sëñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko sëñ Cheikh Jëmba donc ñu ngi ñëw fii tey commission santé moo fi ñëw fii ci yoonu Daaru di jël suñu nuyoo rek di ko teg ci loxo soxna bu Seye ak sëñ Mbacke Maram mi nga xam ne ñoo fi nekkal tubaa ca kanam di nuyu bu baax sëñ Aliou Gassama. mi nga xam ne tey moo moo tabax poste euh, case bi tey Touba kanam ñëw am yéene équiper leen ko di ñaan suñu borom yàggal ko fi wéral ko ndax lii euh, lu ñu war a def la kon ñun bu ñu ko defalee ba pare ñu mottalil ko kon vraiment amal nañ ko cant di ñaan suñu borom gën ko fi yàggal ñu toog ba fii nii ñu taxawaat fi muy muy muy poste yàlla mën na ko yàlla na ko suñu borom def di leen wax ne Touba kanam moom comme xam naa ñii ma jiitu niñ ko waxee rek askan wi rek moo ko tax a jóg laaj leen laaj leen lu ngeen mën def ko it fu ngeen gis sax laay wax waaw ndax euh, yoonu daaru moom dootuñ fi waxe waxi waxi Touba ca kanam ndax foog naa ne Touba euh, dëgg la nag niñ leen niñ leen jàppe itam jàppe ngeen ñu ko parce que chaque mois ngeen andi fa versement boo xam ne équipé na seen post bi waaw loolu aussi il faut ñu leeral la leen ko chaque mois ngeen andi ko kon bu ngeen ñëwee di verser loolu teewul ngeen ñëw sollicité ñu ñu daal di ñëw équipé leen kon loolu dañ ciy sawar bu baax a baax a baax ñu ngi delluwaat di ziaraat bu baax suñu sang bii nga xam ne moom lañu àndal muy sëñ Mourtala di président social. nga xam ne fépp fu sante taxaw ba ñu taxawee ak tey rek mu ngi ci suñu gannaaw di ñu dooleel di ñu di ñu jàppale di ñaan ngeen ñaanal ko suñu borom gën ko fi yàggal gën ko wéral ak euh, sëñ baaram mi nga xam ne aussi moom mooy président massification moom moom xam naa ne moom yoon waa waa waa yoon daaru la. ci suba motu sax 30 minutes dañ ko war rek mu taal otoom ñëw suñu xol daal sedd na lool macha allah. ñu ngi ñaan tam yàlla bu doon suñu mujjee daje ci barke bi maam Cheikh Ibrahima Fall wa tuxrina bi fi lima babta wal tafina fi lima xata wala takun mubtaliyan mina haran bi ma laysa yutiixu ya samaan wa ablana taysira wal falaaxa في كلتا الدارين والنجاعة بجاه سليم وجاع من منير يعظ أرما مثله ولم نجد